que def nañ hauteur de vue jiital intérêt général ba tey jii lii nga xam ne moo ñu lëkkale mu a am donc ñu ngi leen ciy félicité di leen encouragé F24 bëggul dara ci réew yi lu dul ñu booloo yaatal def unité d'action boo xam ne dañuy def li nga xam ne moo gën ci réew mi mooy li nga xam ne mooy ju jàmm ju lalu ci dëkk jàmm ju lalu ci dëgg nag mu ngi mun a am ci bu fekkee ne Macky Sall mi nga xam ne ba mu fi nekkee ba léegi mu ngi jalgati yoon mu ngi violé loi yi malgré le fait que mu prête ci constitution bi mu ngi dëkk ci violé constitution bi. parce que violé constitution rawul ñu ne la yow mii sa mandat fii lay ngay dem di luñ bët ba naan da nga koy yokku ay weer ak i weer loolu violé constitution la loolu coup d'état la putsch boobu nag. defe naa fi kenn nangu ko te moo tax ñu jóg kenn nangu ko kenn am na si te li ñu bëgg mooy le 2 avril pas une seconde de plus mu dem bàyyi réew mi ñu jaarale ko ci yoon li ci topp nag mooy bu fekkee ne moom ak ay ñoñam ñu ngi naan nañ fi toog ba juin nañ fi toog ba 2027 ñun askan wi ñoo war a taxaw ñu ciy taxawee mooy manifestation bu am samedi war na am benn euh, euh, le 6 war na am na Sénégalais yëpp génn na Sénégalais yi organisé wu ci quartier yi ci commune yi ñii nga xam ne ñoo yore parti yi nañ joxe ay recommandations seeni membre membres lëkkaloo bu ñu lëkkaloo ànd luy mouvement bu ñu def bëgg a def dina am mën a génne un million deux millions de personnes ci mbedd mi ñu woon Macky Sall ne ñun duñu ay jaam ay góor lañu ñu woon Macky Sall ne ñun ci dëgg ci jom ci ngor lañuy dox te moom daf ñu bëgg a teg ay jaam wala mu teg ñoo xam ne seen xel yengul loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg moo tax ñuy sargal ñi fi nekk nii di ñaan rek vraiment ñu mën a lënkaloo nekk benn di xëccandoo di dóorandoo bu ñu ko defee Macky Sall dañu abal te bu ñu abalee dañu fexe ba keneen du fi mën a ñëw itam di def li nga xam ne mooy li ñuy wax hyper monarch hyper présidentialisme monarchisant loolu doo fi am donc loolu dañuy ñaan ñu ngi ñaan également candidat yëpp ñun F24 ñu ngi toppatoo ñu sécuriser scrutin bi bu koy lijjanti am nañ logiciel am nañ ay nit ñu xale ñu ci taxaw bu ñu àndee defe naa dañ ko defar donc bu ñu àndee dinañu defar euh, sécurisation scrutin bi bés bu ñëwee muy ëllëg muy gën a ëllëg nañ ko def mu jaar yoon nga xam ne kenn du donc loolu mooy suñu taxaw ci réew mi du ngi leen di gërëm leen sant.